ñii di collectif national des boulangers du Sénégal ak regroupement national des boulangers du Sénégal amaloon nañ ab ndaje ci talaata gi ngir waxtaanee jafe-jafe yi nga xamante ne ñu ngi koy jànkonteel jëm ci secteur boulangerie. waaw dama jàpp ne grève wóoru mën a am ndax dafa am lu ko war a jiitu mooy waxtaanee ak boulanger yi waxtaan ak consommateurs yi te jamono ji ñu toll nii jubay élection jàpp naa ne képp ku naan grève la bëgg bëggoo Sénégal te ñun ay boulanger l ñu nangu loolu mën a am li ñu bëgg décret bi nga xam ne président euh, signé woon na ko en nga ko ndax ndax décret bi lépp mi ngi si euh, nu ñuy jaayee mburu mi nu ñu koy defaree ak nu ñu koy taxawee ba nga xam ne anarchie bi nga xam ne moo am secteur bi ndax ñun suñu ay perte euh, restant bi la ak euh, intermédiaire yi restant bi ñu ngi perte ci suñu production 16 en 20 pour cent ñu ngi perte tamit ci cinq francs par bagget ci vraiment intermédiaire bi jàpp naa loolu mooy jafe-jafe bi waaw duñu du ñu grève te mburu mi du duñ koy yokkul te it ñu ngi woo état bi mu accompagner boulanger seen ay jafe-jafe ndax boulanger tamit ñu ngi ci perte mais perte bi ñu li ñu ko andil euh, du consommateur yi euh, du du du du état bi ndax état bi lépp lu mu amoon ci mburu mi dindi ko mu jax tàkk kon ñun suñu biir ñi nga xam ne ay boulanger lañ ñoo nekk di concurrence concurrence boo xam ne déloyale la ca noonu kii di Mame Alassane Thiaw itam nekk njiitu jeune consommateur Sénégal yi daal dinay dalal xelu ñi nga xamante ni ñooy consommateur yi ci njëgu mburu bi mburu mënul tëb tëb rek du yokk parce que te dafa am cadre bi ñu koy waxtaanee pour que war kon kenn amul pouvoir décider ma damay yokk mburu mm. même état du Sénégal bu bëggoon wàññi wala bu mu yokk day woo acteurs yi nee leen kaay leen kat ñu waxtaan yéen yoon la ñu war a jaar pour def pour def lee kon nag kenn amul pouvoir boobu noonu pour mun a yokk wala nga wàññi pour wax rek consommateurs yi nee leen mburu mënagul yokk fu ñu toll nii mm. bu ñu doon xalaat bay xalaat sax wàññi la ñuy wax parce que blé bi nga xam ne mooy élément central mu nekkoon ab ndaje bu ñu amaloon ci talaata gi ngir waxtaanee lu jëm ci secteur de la boulangerie ba tax na li ñuy xamle mooy fas yéene wu ñoo dem grève fas yéene wu ñu itam yokk njëgu mburu bi waaye ñu ngi sàkku ngir ñu jàppale leen ci ñu respecté règlement yi.